sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala nabiyi l ummi sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yowm ddin amma baadu subhaana almaabudi al adl إن الله سبحانه لما خلق الخلق لعبادته كفل لهم جميع الأدوات والآلات التي تعينهم على ذلك وجعل العبادة التي تعني التدين للواحد القهر مكفلا لهم جميع أنواع الأمن والاستقرار النفسي فجعل المقصود الدين هو حفظ الأمن النفسي والأمن الديني وضمان سيادة الحق والمال والعرض والتي تعتبر أساسيات الأمن والاستقرار اللتان يحتاجهما الإنسان wa urrifa fi lislaam bilkulliyat alxamsa kama aqaama alalaaqat bayna alibaadi ala ususin wa qiyamin ida ma ruuyat wa tubixat hunni al insanu bilcayshi alraxid wa min tilka al usus walqiyam tilka al ahadisu aljamia wallati minha qawluhu sal allahu alayhi wa sallam ya ayuha nnaas ufsu salaama wa athimu taama wa sallu billeyli wa naasu niyaam wa qawluhu alayhi salaatu wa salaam wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin man laa yamanu jaaruhu bawaa'iqa wa xawluhu alayhi salaatu wasalaam almuslim man salima almuslimuuna min yadihi wa lisaani wa xawluhu alayhi salaatu wasalaam laa yuminu ahadukum ataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsi wa xawluhu alayhi salaatu wasalaam masalul muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masalil jasadi lwaxid isa stakaa minhu udwan tadaa lahu saairul jasadi bi saxari walxumma wa xayru dalika kathir wa nara al adla al ilahi fi annahu allaqa al jasaa wal mukafaata ala al amali wa itqaani fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara wa an laysa lil insaani illa ma saa fa huwa subhanahu lam yuxalliq al jasaa wal mukaafaata bil bil waqt wala bi shahr wala bi intihaai al amal huna nara al adl al ilahi هنا نرى الفجوة الساسعة بين العدل الإلهي والعدل الإنساني في تقييم العمل ومكافاته اللهم قص بأيدينا إلى توفيق طاعتك ginnaaw bi nga xamee ne sant nañ yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci suñ borom mi nga xam ne dara tëru ko te mane na nu ne mu may Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi taxaw taxawaayu Serigne Touba wér ak kattan aku man ba lépp loo xam ne yéene na koo defal lislaam ci yoonu Serigne ci toolub Serigne Touba mu def ko mu sotti te sotti colee tan ànd koog moom defal ko itam képp koo xam ne ab jullit la te lislaam ñor la te te li sa jéego yëpp li doon lislaam mu defale la mu defale ko noonu ba li nga yéene nga def ko ci definu kawe sa jot may nu wér ak kàttan yitam ak sa te sàmmal nu réew mi yokk yokk ko gi yokk itam xéewal yi bañ mën a dund ci dundin wu rafet ginnaaw loolu nag ajuma ji weesu ñu ngi doon waxtaane ci xam le ne suñ borom day bam nu bindee binduñu ngir wane rek képp ak kattanam ak manam waaye dañoo bind ngir loolu bokk na ci sax bind nañu ngir war a kattanal ak manam waaye dañoo bind itam ngir bëgg ñu jaamu ko ñu xam ne jaamu googee moom dafa am noo xam ne ni la ko bëggee na mu ko bëggee itam bàyyiwuñu ñu ciy doxee suñ xelum bopp bàyyiwuñu ñu ciy doxee suñu gis giinu bopp gis nu bopp waaye da koo am koo xam ne moom la yónni mu mu wonnu nan lañ koy jaamoo ci jaamu yin wi nga xam ne ni la ko bëggee muy yonante bi sallallahu alayhi wa te moom yonent boobu yi nga xam ne moom la yónni itam ngir mu war noo woon war woon ni ñuy jaamoo suñ borom bàyyiwu ko moom itam ci sagoos boppam bàyyiwu ko ci xelum boppam bàyyi ko ci gis-gisu boppam waaye moom da ko woon ne ko nii laa ko bëgge nii laa bëgg itam nga lee ko noonu loola nag bi bi nga xamee ne suñ borom bind nañu ngir ñu jaamu ko dañoo dañoo defal nag ay xéewal yi tax ñu mën koo jaamu bokk na ci xéewal yi nga xam ne moo tax ñu mën koo jaamu mooy moo wax dafa wax ne ku wa kuluu wasrabu wala tusrifu bu ngeen xiifee day man ngeen a lekk bu ngeen su bu ngeen maree itam man ngeen a naan waaye lekk gi naan gi itam na doon loo xam ne ak ñokk-ñokkal du ci bokk na doon rek la fa yem fa mu war a yem loolu mooy li nga xam ne moom la ñu suñu borom sant waaye bi mu nu santee loolu itam kenn ku ne xam ne kuy liggéey loolu nit war nga ko wutal sécurité bu doy sëkk ba nga xam ne dana am xel mu dal ngir mën laa jaamu ni nga xam ne la la bëgg a jaamu loolu itam dafa mel ni suñ borom da koo bàyyi xel bu baax a baax ndax dañoo jox dañoo wutal sécurité gu wér a wér ba bañ na sax di ba bañ na ko ba diine ji nga xam ne moom la ñu bëgg ñu jaamoo ñu jaamu ko ci daf koo def muy diine joo xam ne li ko tax a jóg mooy sé jox nu sécurité ban man koo jaamu ni nga xam ne ko bëgg a jaamoo nañ ni li ko tax a jóg ci ni nga xam ne ni lañ koy jàngalee di wax ne al xam sax muy li ko tax a jóg mooy dafa bëgg diine li ko tax a jóg mooy dafa bëgg dafa bëgg jëmm jëmmi doomu aadama ñoŋ kenn du ko kenn du ko jalgati ci lu dul jalgati jalgatin woo xam ne jaaduwul dafa bëgg itam diine ji nga xam ne moom lay moom lay nekk mu ñoŋ noona itam mooy doo doonu diine joo xam ne saayu la duggee saa la neexee nga dugg saa la neexee nga génn waaye dafa doon loo xam ne faw boo ci xasee dugg nan la ko sante rek nga koy def ndax comme doonul loo xam ne dañ la ciy forcer ngir nga dugg ci boo ci duggee itam danga am noo xam ne moom nga ci war a nekkee am na noo xam ne sañoo ko ci sañoo sañatoo cee génn ba bale boole tam ci li nga xam ne defal nañu ko ngir bëgg suñu sécurité mat sëkk moo di ne suñu xel mii nga xam ne moom la ñu jox nga xam ne moom la ñu terale def defalu ko ku dul doomu adama xel moom itam bëggut kenn ku ko jalgati bëggut kenn koo xam ne dana ko nëxal bëggut kenn koo xam ne da nga ci def loo xam ne dana tax ba xel mi nam waroon a doxe wala nam waroon a liggéeye du ko def bëgg beneen bi ci tegu tegawaat mooy sa alal ji nga xam ne moom nga am nga xam ne moom ngay dimbanikoo ci jaamu yàlla gi ba tey itam doonut alal joo xam ne kenn sañ la cee sañ sañ la la cee jalgati kenn sañ na koo jël ci lu dul ni nga xam ni la ko suñu borom bëggee kenn sañu koo jël ci lu dul ci loo xam ne sa bëgg sa sa sa sa sa da loo xam ne yow yaa ca d'accord sa bopp kon moomu bokk na ci bokk na itam ci yi nga xam ne bëgg na mu ñoŋ ngir nga mën a am jaamu yàlla ni nga ko bëggee mooy sab der itam bëggut kenn koo xam ne dana ñëw di ca teg loo xam ne bokkut ak lu di ca teg lu jaaduwut kon day mel ni diine li ko tax a jóg mooy suñ jëmm suñ jëmmi bopp na na ñoŋ suñ diine itam na ñoŋ suñu xel itam na ñoŋ suñu elal itam na ñoŋ suñu suñu der itam na ñoŋ njaboot gi nga xam ne moom la ñu am itam na ñoŋ loolu mooy tax ndax yaakaar naa ne loolu kon mooy tekki ne kon lépp loo xam ne moom nga aajowoo ci sécurité ngir mën a jaamu sa borom suñ borom defal na la ko ngir bëgg nga mën a ja nga mën koo jaamu ni nga xam ne ni la ko bëggee. loola nag yëmu ca waaye da caa teg itam relation yi nga xam ne moo war a dox ci diggante doomu adama yi nga xam ne ñoo bokk. ñoom ñoo bokk borom te di ko jàmm relation yooy itam mu leeral ko ci teg ko ci tegin wu leer naññ wa wan ko ci wanin wu leer naññ ngir bëgg ngir xam ne lool bu fekkee ne teg jaar nañ ko ci ni nga xam ne ni lañ ko wonee te jëfandikoo ko comme ni nga xam ne la bëgg ñu jëfandikoo ko ba tey itam jàmm képp ak ak xéewal mooy dox suñu diggante mu doon mu doon dundin woo xam ne képp koo xam ne jéem ngaa jaar ci nii nga xam ne ne suñ borom rëddee suñu relation war na nekkee loola société boobe ci jàmm rek la nekk ci xéewal rek la nekk xéewal doole maanaam diin relation bi nga xam ne nag moo war dox suñu diggante suñ borom bi mu koy leeral ji ji bokk na ci loo xam ne moom moo ko leeralal boppam am na ci loo xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy moom la wax mu leeral ko bokk na ci yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg mu doon loo xam ne mooy lii mooy li war a dox suñu diggante ndax mooy tax ñu ñu am jàmm ci suñu diggante moo di ne kenn bu mu romb mbokkam ta mel ni romb ko boo rombee sa mbokk njullit na nga xam ne kii sa mbokkum jullit la nga woon ko ne ko nga woon ko ne ko yëg naa ne sama mbokk nga jàmm li ma bëggal sama bopp laa la bëggal muy jàmm ak xéewal nga nuyu ko jàmmanteeg moom loolu bokk na ci li nga xam ne mooy mooy tax relation bi seen diggante war a rafet bi ci teguwaat itam mooy kenn koo xam ne am na loo xam ne yàlla may mane la la ko la nga am nga di ci dimbale ñi nga xam ne ñooña xëy na am nañ nekk nañ ci ak lot beneen bi ci teguwaat mooy dangay ngay léeg-léeg tam da ngay wéet ci sa borom yi wéet ngir sa borom képp jaamu ko ji jaamin wu sell loolay nee na loolu yonent bi sa alayhi wasallam wax na ne bu ñu ko defee danañ ba léegi danañ tabbi àjjana te jàmm rek lañu fay jam lañ fay duggee du doon loo xam ne dañu ànd dañ ànd ak benn coono ci duggiin wa bokk na ci yi nga xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ko ngir bëgg relation bi nga xam ne moo war a dox suñu diggante doon doxin wu rafet moo di ne jullit bu nekk nee na jullit dëgg mooy ki nga xam ne du du laal def ci ab ci ci ci ci loxoom luy lor benn jullit du di wax ci aw làmmiñ itam luy lor benn jullit na ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ba tey ngir bëgg rek relation bi nga xam ne moo dox suñu diggante mu dox ci doxin wu rafet moo di ne jullit bu nekk la nga yéene sa bopp danga koy yéene sa mbokkum jullit beneen bi ci teguwaat mooy dañoo war a nekk wenn say di bokk lu ñuy jëf di bokk loo xam ne moom la ñuy yëg di bokk lu ñuy naqari di di bokk loo lépp loo xam ne mooy suñuy pexe itam ñu bokk ko comme ni nga xam ne la ko Sëriñ Tuubaa waxe woon ne ñi nga xam ne dañoo bokk diine lii ci lii li ñu war a nekk li ñu war a bokk mooy nañ bokk yéene bokk pexe te bokk liñ am loolu mooy moom la lislaam bëgg itam ci ab jullit bu ne jullit mbokku jullitam na bokk ak moom yéene na bokk ak moom ay pexe na bokk itam ak moom li mu am loolu mooy mooy tax jullit mooy tax jullit gi wér loolu nag moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane woon ci ne jullit bu nekk dafa war a mel ni aw benn cër la ci jëmmi jëm jullit gi benn cër bu ne xam nañ ne jëmm ji lu laal jëmm ji rek cër bu nekk dana ko yëg kon mu mel ni kon faw rek ñuy bàyyi xel ne nañ war a ni nga xam ne rek suñ tubaab waxee rek muy bokk yéene bokk pexe te bokk li ñu am tey soppante tey wóolante tey dimbalante loolu mooy li nga xam ne mooy moo moom la suñ borom bëgg ci ñun waaye li gën a yéeme waat itam moo di ne suñ boroom bi nga xamee ne dañu andi fii ngir ñu jàmm ko jàmm gi dafa wax ne boo ko defee nii lii laa lay faye waaye li gën a yéem ci fayin fayin wa moo di ne moom du la fay ci waxtu wi nga def ci jàmm yàlla du la fay li nga li nga li maanaam ci coono bi nga ci def du la fay ci julli nga ba pare julli julli mu daal lay fay waaye lim lay faye mooy nanga nga defe jullit ga na defe koor ga na nga defe na nga natte asaka ja maanaam ci jëf ji la lay fay waaye du la fay ci waxtu wa nga ca jeexal ngir mu jëf ji mën a sotti du la fay itam ci bu jëf ji noppee ba noppi ndax xam nañ ne loolu moom la doomu aadama di def waaye day mel ni ak mag ñàkk maandu da ciy feeñ ndax xam nañ ne ñaari nit mën nañoo bokk di liggéeyandoo ci benn barab duggandoo ci waxtu wàccandoo ci waxtu waaye buñ xoolee mën nañoo gis ne am na ci ñaar ñooñee koo xam ne moo gën a jëf moo gën a rafet jëf moo gën a gën rafet ab taxawaay kon mu mel ni ñàkk gaa xool jëf ji di xool waxtu wi wala di xool temps ba mu fa def loola léeg-léeg dana dana tax ba maandu gi nga xam ne moom lañ war a def suñ diggante ci jëf ji nga xam ne moom ngay defal moom la doomu aadama defal maandu ko mën naa bañ a nekk ni mu waree bu dee itam dañ ko aj ci saa yu nopp jëf ji noppee jëf ji mën naa ñaari nit mën nañoo bokk defandoo dara waaye bu ñu noppee ñaari jëf ya mën nañoo wuute ci defin wa kii mën na koo def ci defin wu sell woo xam ne dara ab kooj wala ab rax amu ca kee nag mën na koo def mu sotti waaye nag ab rax ab wala ab kooj mën na caa nekk kon ba tey mu mel ni fay leen ñoom ñaar ci nopp gi ci jëf gi ci kese rek ba tey tekkiwut ak maandu ci doom ci ci sa diggante ki ki lay jëfal loolu nag moo tax suñu borom moom li muy xool mooy jëf ji nga jëf rek fi la lay xool fi la lay fayee loolu itam moo tax ba jëf ji li ngay defal suñ borom mu mën a nekk lu rëy a ci ci diggante su néew a lu gën a néew sax ab seconde mën nga cee defal suñ borom loo xam ne jëf maanaam pay ga mën naa rëy lool wuuteeg nag li nga xam ne moom ngay defal ñaareel bi itam moo di ne suñ borom yërmandeem ci kaw yërmandeem tax na ba li nga koy defal ci lu baax ak noo ko defee rek doonte doo doo sonnoo ci itam suñ borom dal koy fay laha ma kasabat wa alayha maktasabat waaye li nga def ci ab li nga nga xam ne danga koo def ci ab safaan moom lam la cay lam la cay topp mooy li nga xam ne yaa ko def te te jublu ko waaye loo def te jubluwoo ko ci ab safaan suñ borom mën na la koo jéggal waaye loo def ci lu baax lu mu mën a doon doonte yaa ko jublu doonte jubluwoo ko itam suñ borom dana la ca fay kon loolu mooy tekki ne yërmande suñ borom ci ñun rey na loolu mooy tekki itam ne suñ borom jëfal nañu xéewal yépp ngir bëgg rek ñu mën koo jaam ci jaamin wu rafet loolu moo tax suñ borom di wax ci alxuraan kasaalika yutimmu ni'matahu aleykum la'allakum tus arsh ji ni nga xam la ko bëggee kon suñ borom xam ne mooy borom kàttan te mooy borom ak man te mooy borom dimbal yàlla nañu ba ni mu bëgg ñu jaamoo ko ñu defee ko noonu te buñ ko defee itam moom ci ci ak mbaaxam mu fay nu ci lu kawe suñ jot loolu suñ na ko yàpp na ko yàlla rabbana laa fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa rabbana la rabbana innana zalamna anfusana zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa sëriñ bi dañu sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal ledunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin